ban dëkk la loolu léegi li nga wax lu mu doon yow ah li nga wax lu mu doon nii dootu mën a dal kan kan Cap Vert dootu mën Cap Vert dootu mën ay na la yaa ko loolu loolu la kan kan yoo xam fi mu lu metti daal nii yoxu ah man mel ni amoo kër man waaw loolu kër gi rek nga jël waaw loolu xam nga mel ni amoo kër lu xaw tey ah yéen yàlla yonent bi lu xaw loolu xaw tey nii xamal ma lay laaj ba pare am nga kër wala am naa kër kay am naa kër am naa damaa bëgg xam nga xam nga wax ma lu xew tey laa wax

na bépp doole bu pare. Espagne waaw yor xaalis bu jeex. moo ko moom. comme ne France waaw léeg-léeg nga gagné léeg-léeg mu doxaan sant kay ba nga normal moom. mun naa xam maa la xam. léeg-léeg kay moom nga gagné lu dul jeex. waaw waaye léeg-léeg mu teel a sant nag. kon fi mu kon fi mu ne xale yi kon xaalis mooy li ñu koy carte kon. Mm. kon yow da ngay carte ni yow. Madrid Atlético Madrid. waxuma Atlético Madrid yow da ngay carte waaw yow fi mu ne. ah allo. ay jaay dina mana sabai, sabai. kai kai situ kaay kai, Lo gi Ah, waki yo, ah Ala tu ko alanti koo man rek kii bi nga ma wara a jox ndam le ah raya thank you thank you merci te nga téye sa làmmiñ wi nak. nga sa làmmiñ wi de Dole ram. doxateel rek. waaw loolu kenn yow kenn raw la yow waaye yow loolu duggee ci affaire carte carte yi. ñëwul carte yi ñëw da nga koo ñëwut rek. wallaahi da nga koo ñëwut. da nga koo ñëwut. yaa ngi ciy gagné xaalis normal. da nga koy yëyoo waaw. banque bi nga toog si laa ko jël ministre bi si laa ko fay. sa kër gi yaa ngi koy joxe dépense. tey nag nga joxe ma ticket bi ñaar téeméer bi moom laa suy nii. ndax la. yaa naa ñaanal ma rek ah ah ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Wah, ma jaaga par ñaanal ma jàpp kon kay élève waaw élève si dëkk bi léegi li leen merci gone boo yang waaw ya, sama morom Wah. waaw ñu si kasih. Wah. Nah, walaupun xoos looyal jox am naa dina tégal seen lay si la dëkk daanaamu kon par léegi da ngay benn da ngay Wah. Biar lebih yi gagné si tikke bu du Sénégal ñaata millions d'habitants la. léegi 14 millions la wala. yow mooy 14 millions d'habitants la wala teg na. teg na moom teg na teg na teg. 13 millions yëpp dañ ko gisee. dañuy gisee dañuy gisee parce que. maa la ko wax yow de fekk naa si yow moo ko doon mën a mën a wéyal. mi ngi mi ngi raay de. waaw da ngaa xam ne yow yow. mi ngi raay de dëgg neexee yàlla rek. mi ngi raay. nga toog ci concentré wu ci nii. maa la ko wax kon seen léegi jëlee leen jëlee leen dugg léegi. Oh. léegi mag ñi ñëw dégg gën a encouragé leen comme sa classe ay doon ngeen yéen au lieu que yéen ñu mel ni yow yéen a yàq dëkk bi waaye péeru jàkka ja laa dégg moo naa ñëw naa man péeru jàkka ja laa lakk lu ko lakk jàkk dana péeru jàkka dana lakk lu ko lakk gone dafay toog dama jàkka ni ko jàkka moom daa mënut a dakk dafa naan yow nan la mag li si biir jàkka ji di xutba ah ak ak nga nekk si taatu jàkka ji di duur rek loolu moom lu mën a nekk dafa naan damaa xam mooy tegal sa nday lu tegal sa waaye yow yow ku la raw di yële damaa xam ne yow pari foot bi ngay def moom. saaga mañ jeunes yi léegi yëpp ci lii ci lii ci lii ñu pari foot bi ñu. xale yi jàng duñ. ay fay de. ndekkee tuñ bu suur. a maa ma mande. moo tax xanaa ma euh, élève boo gis jeune jeune boo gis comme sama saa bi bu la bu la que dund yi bokkul lekk yi bokkul. naaru pari bi nag tax na.

sulaam ya, ya. wala yàlla defee itu baik, sulaam waaw toh enggak doon sulam. dégg yow man man na ko naan sulaam doome raam la fekk voilà ci doome raam la bokk man man am doome raam la ma xam yow ñu léegi doon doole te ma laa jox nga si man sinu ba ay wa man ma sinu ba ma ma tel bi bi ñaan ñaan sax ah xam nga Sadio Kamu xam nga doy kita ci tànk bi daa neex Liverpool la ne kaaw jeu rek yow yàlla mën na laa may bu suwee yaa ko génne ci mbedd bu yang booy ñam dama yam fii day leen ah voilà léegi bu suwee du ma def léegi boo gañee waaw nga dem sa kas. bëggoon na ba fii kii wax bu nekk yaa ngi sa bos. ah ziw ziw ziw kan kan ngay jël woon. xam nga benn équipe rek posé woon sànq. Liverpool dott mu nga xam ak kan. dott mun. waaw. defar dott mun Guinée. dott mun Guinée. dott mun Guinée. mun Guinée boobu dina baax nga defal ma Cap Vert nga defal ma Cap Vert ci Tottenham ko. Cap Cap Vert am na Tottenham. moo ko man. yéen keroog lii métti la ko wuli. Cap Vert moom. muy defal Maroc ak Real Madrid. ci xale nekk ci Maroc. Real moom mën naa téegal ndeyam ba mu nekk. maa ko Chris day wàcc loolu pour que doxal nday bal bi lay def si biir caax. man Barça boobu dégg naa ko Barça boobu moom. Barça Guinée Bissau. Barça Guinée Bissau bu doon ñoom kii nga koy boole mu petit. Guinée seenu Guinée ba dëkk. Abamayoro Abamayoro rek. Abamayoro Gabon dëkk Gabon dëkk. Abamayoro ko dëkkale Gabon. li ma lay wax sa dox gaa yi. ah wala Gabon. moom man bëgg nga ko man affaire bi si biir xamal ma waaw. dans le président Gambie bi la. ah oui kii kii Gabon de Gabon la dëkk. Gabon. jërëjëf ma woo. léegi daal. bu génnoon laa génn. say sii sëñ bi lay ma dugg sa tool. waaye fi mu ne nag xam naa moom naar bi téegalagul sa ndey waaye su xam naa soo la jëm. bu génnoon nag yaa ko génne. boo ba ñamee moom. na ngeen fii. na ngeen fii koy koy fi dinañ ko sa bopp. kon daal léegi lekk tudd su naa ko ndax nekk ci reetaan wax ji de laarul man wax jooju daal laarul man da ngay dem sa tikke ba jox am ah. ni ko am xoolal ma marché boo ko joxee dana dana danga kii ah. waaw yow yaa mën naa faj dara ngay xëjëm xëj yaa ngi xasaw nga de dafa sedd dafa sedd dafa sedd xam nga balaa laa koy defar sal septembre ba tey mais xëy na du ma ko def mais yow xet xanaa xam nga koy jël

yéen waa Hann TV ñu ngi leen di tàggu. waa Hann TV. waaw soo ba tey ngeen sa pare fi binaan waa Hann TV. <laughs> waaw c'est li fi xew de. waaw bisimilah lii fi xewoon tey moom la leen indi lool waaw. xew si tey. li fi xewoon c' est c' est tey. c' est tey ay ay la xew. c' est tey waaw waaw. Ah, di siyaar suñu réalisateur. Mm-hmm. waaw portugais bi. Mm-hmm. ñu ngi koy siyaar. wéer mm-hmm. wéer daa boo de wéer wéer wéer tey. ak képp borom daal di siyaar bu raadu ma.

laay saar meranti. raam bi ca pare fu bëri nekk punya. jeex punya. ñoom ñëpp punya naa waali bu dee yàqu ñu léegi bu naa la léegi jàng ñu léegi pare jàng ñu pare fu rek bu naa la daa way ah booy nii ku jàng nii comme ça boo boo waree jàng ñëw sa pelle ba ñu di di kii am yàlla day téegal sanday ba nga danga nga acca la lay wax moom moom faanaa waaw seetatu pelle yëpp bu neloon ni bu naa mat ñu yor pelle moom di jàng waaye nag day jàng day jàng dina def boo booyee bu ñu koy seet si dañuy waxoon mais gel boo xamante ni xarnu bi toll na ni xarnu gouverneur général da doon daal. booy bi. waxtu mel la def ngir bëgg maire bi xam ne bañ maire bi xam ne ko rek. booy bi nag la ma yaa jël seen. yaa jël seen tàggatu di seet di seet kay tàggatu laa yow laa dégg kay tàggatu. waaw waaw mbokk yi li leen fi li leen fi doon tey si li xew tey tey li fi xew doomeraan la nag doomeraan nga doomeraan nga del tam di ñàkk a ñàkk loolu soo doon yow yow yow fan dama tàng ci bàmmeel bee mooy sa sëriñ waaye na ñaay ñëpp ne si bàmmeel loolu yow fajal moom digaale ma ko yàlla suñu borom foofu moom contrat bu àgg waaw loolu la ñu doon tey ji waaw loolu la ñu doon tey ji si en TV en TV waaw waaw sa kaw sa kanam si li xew tey waaw waaw loolu ma fi xew sa kanam asalaamaaleykum may eh, ko wasalaamee wa rahmatullahi wa barakatuh oh, may ko wasalaamee wal ragaba wa